dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw moo di kàtt ak yéen ba tey ci xibaar yi mbokk internet info 221 di ay kàddu yu duppee ci Seydina Omar Touré euh, ay kàddu yu culpabilité noonu la ko mën a tëddee ak ay traite yoo xamante ni ay wàllum citoyenneté ci atum 2021 nag même période bi nag ñi jege woon président Macky Sall ñu ngi doon nag orchestré lu jëm ci wàllum fitna national ci région wàllum politique ak euh, sacrifier ay dundu doomu aadama yàq réputation ñu bëri ñoo xamante ni daal duñ ci addu loolu loolee nag nekk loo xamante ni ñun nii war nañ ko mën a dàkkal jamono ji ngir rek Sénégal delluwaat ci jàmm di ay kàddu capitaine Touré bu ñu foogee nag ne lépp lu ñuy manigancé dañuy bëgg a comme ni ñu ko tubaab bi defee du ñu bàyyi benn yoon nag président Macky Sall ak ay ñoñam di ñu seen i euh, dëgg waaye tamit seen i wax ak seen i euh, mbir yu ñuy def teg ko ci askan wi suñu dignité ak suñu ngor nag mënuñu ko may askan wi yëpp nag gis nañ ne jamono ji kenn sonalu leen ku nguur gi fi nekk ak ñu mu àndal nga xamante ni nguur moo leen tax a jóg loole tax nag ma lay sàkku di la di leen wax yéen askan wi lépp lu ñu tànte di def ngir rek juboo am diggante Ousmane Sonko wala sax ñu cee ut ab amnistie nañ ko teg ci yoon ndax bëgguñu benn yoon ñu fi génn ñu naan ñoo manigance lii ñoo def lii ñoo àddu lii humiliation bi nga xamante ne ñu ngi koy amal jëm ci projet toxal élection yi loolu moo gën a métti te tey ji askanu Sénégal ñu ngi koy xalaat di ko xalaataat ci naka la ñuy def ngir mucc ah, ci lu ni ba tax na nag jafe-jafe yooyee war nañ ko mën a saafara capitaine Touré gis ne situation bi jigéen góor ak jigéen rawatina nag journaliste yi nga xamante ni dañ leen toroxal méttita leen jamono jooju nag opinion nationale ñoom ñëpp ñu ngi ubbi seen i gët ñu continuer di soutenir pouvoir bi ci li nga xamante ni mi ngi koy teg Sénégal yi di faat ay xale di toroxal ay journaliste ay intellectuels yoo xamante ni kenn gisul leen ñu nëbbatu bañ a wax ngir ñu bañ leen tëj ci kaso bi presse étrangère bi wala nag suñu conférence de presse bi wala nag jëm suñu journaliste yi mënatuñu def seen liggéey ni mu waree ndax takk der loolee doon loo xamante ne ñëpp a ngi ko gis ci askanu Sénégal ba tax na rek que lépp lu waaye àjju rek nañ ci ànd te histoire nag dina dellu si te lépp loo xamante ne jot na ko fi def dinañ ko diggaaleegi moom ba mu saf-saf kon nag ma Macky sàll ak ñu mu àndal bu ñu jàpp ne kàddu yi mu wax ni intérêt la ngir ñun ñun lu ñu soxal rek moo di Ousmane Sonko mu daal di falu waaye itam lépp loo xam ne jafe-jafe Sénégal la ñu mun ko saafara comme niñ koy xeexee di ex capitaine Touré bataaxal bi moom moo ko daal di fësal